Makhtar Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Moreau. Makhtar Ndiaye nga nekk euh, professeur au lycée Kharkane de Gossas conseil municipal à Bambey coordinateur uh-huh. euh, départemental de Gox Yu Bees section uh-huh. Bambey déjà ñu lay euh, laaj sa xalaat rek ci li nga xamante ni moom mooy reprise u front social bi parce que gis nañ ni élection législative yi bi mu weesoo pratiquement syndicalistes yëpp ñu ngi ci ay yëngu-yëngal wala sax ci ay préavis de grève naka nga gisee reprise front dimension sociale bi. waaw muy loo xamante ni nag euh, euh, naturellement noonu la sénégalais yi noonu lañ mas di def souvent bu ñu defee li ñu war a def ba pare dañuy foog ne rek euh, seen liñ leen liñ leen war a defal aussi dafa war a nekk au rendez-vous tout de suite et maintenant. donc ce qui fait que bi ñu gisee ne sénégalais yi dañu dem fal seen président muy le président monsieur Bassirou Diomaye Diakhar fay ñu wëlbatiku aussi jox ko majorité parlementaire boo xamante ni dina ko mën a permettre mu mën a diriger le pays correctement alors sénégalais yi dañuy daal di jàpp ne ñoom it seen contrepartie mooy lan mooy que ni seen i jafe-jafe dañ ko war a faj loolu moo tax tey peut-être euh, syndicalistes yi et autres commencé jóg commencé yëglu. mais ñuy wax ne rek yëglu bi teel na parce que nit ki aussi boo ko joxee armes yi yi nga xamante ni moom la wara a liggéeyee euh, da nga koy jox euh, benn temps boo xamante ni dina ko mën a permettre mu càmbar li mu war a def yëpp non seulement mais aussi mu teg loo xamante ni lu dëgër la loo xam ne bu ko tegee ci seen loxo ku ci nekk dina ci gis euh, sa bopp donc li ma gis daal mooy que ni instant bi moom teel na trop front social bi déclenché wu mais ñoom it damay gëm ne peut-être ci seen droit lañ nekk. après bi nga xamante ni li ñu waroon a def def nañ ko mooy fal euh, fal président jox ko assemblée nationale li ñuy xaar ci ñoom nag mooy que ni fii mu nekk président ak euh, assemblée nationale et son premier ministre ñoom ñëpp ñu takku nag pour régler problème mu sénégalais yi parce que loolu nag moo tax ñu fal leen ci falin boo xamante ni falin bu rafet la. voilà Matar beneen mooy acte bi nga xam ni gis nga étudiant yu université Assane Seck euh, bu Ziguinchor euh, def nañ ko ci euh, seen grève bi lakk pratiquement oto yi nekkoon foofu foofule ca biir université ba yàq fa lu bare bari naka nga gisee mbir moomu lay jóge ci ay étudiant mm-hmm. muy lu ñuy ñaawlu parce que étudiant moom bu ñu ko tuddee rek dañuy jàpp ne mooy ki nga xamante ni moo war a yor réew mi ëllëg mooy ñi nga xamante ni ñoo war a nekk président ñoo war a nekk ministre ñoo war nekk premier ministre ñoo war a nekk ay député ëllëg aussi war a doxal dëkk bi donc comportement yooyu noonu waruñu koo am ci jamono jii nga xamante ni vraiment euh, leneen la ñu soxla puisque affaire violence la ndax lakk ay oto jaxase fi nga xamante ni mooy fi bërëb bi ngay jàngee et tout ça loolu yëpp doon na loo xamante ni peut-être ñoom ci seen wàllu bopp def nañ ko sax mais bu ñu demee ba toog ba amaat prise de conscience dinañ xam ne sax ñoom en âme et conscience li ñu def waru ñu woon a def parce que ñoom xaaruñu leen foofu fi ñu leen di xaar mooy jàng am ay résultats yu probants yoo xamante ni dina leen permettre vraiment ñu diriger réew mi alors euh, am am qualification bientôt. mais nag dama leen di comprendre peut-être seeni bëgg-bëgg ak seen i yi ñuy dund moo leen pousse ñu def loolu ma ciy profité di woo gouvernement bi rek. ak leur leur ministre de tutelle mu def lu mu mën a def pour que situation bi dellu siwaat à la normale parce que étudiants yi moom comme ni ma wax rek dañ leen a a yërëm dañ leen a war a dimbali dañ leen a war a taxawu aussi. Euh, beneen ponk bu am solo di campagne mm -hmm. bu njëkk ci nguuru mm -hmm. Diomaye Faye euh, mm-hmm. gis nga mesures yi nga xam ne jël nañ ko li ci bokk mooy fixé nañ uh, kilo mm-hmm. euh, arachide bi à trois cent cinq francs de francs fa naka nga mm-hmm. gisee mesure boobu voilà muy mesure boo xamante ni bu am solo la ndax suñ mbokki baykat yi moom képp ku leen dimbali pour que ñu gis ci seen bopp ci dëkk bi rek sa bopp nga dimbali et puis defal nga ko askan wi yëpp donc peut nag ñu ci bëri ñu ngi wax naan yokk bi bariwut vingt cinq franc la mais vingt cinq tey boo fekkee ne tonne ngay jënd da ngay am mille kilos fois vingt cinq et puis vingt cinq mille lay daal doon ci tonne bi donc mu doon loo xamante ni dañ koy rafetlu di ñaan gouvernement bi aussi dans les années à venir lépp lu mu mën a def pour yokk rek mu gën a baax gën a muxtaare dina ci am solo parce que loolu dina permettre tey suñu mbokki baykat yi ñu nekk à l'aise ba nga xamante ni buñ jaayee seen récolte dinañ ci mën a régler seen problème yu bëri parce que ñoom souvent loolu rek lañu yaakaar aussi Mhm. Euh, Makhtar beneen ponk boo xam ne am na solo di. Mhm. Euh, lan ngay xaar ci assemblée bu bees bi am ponk yu bëree bëri yoo xam ne aussi euh, ñu ngi leen siy xaar ba haute cour de mhm. justice ñu ngi leen siy xaar abrogation de la loi d'amnistie criminalisation de l'homosexualité yow. lan ngay xaar vraiment ci assemblée bu bees bi ak ponk yi nga xam ni tuddal naa la ko. assemblée bu bees bi li ma ciy xaar mooy que ni li ci sénégalais yépp di xaar mooy rupture bi nga xamante ni moom la sénégalais yi bëggoon ba tax gouvernement bi fi nekkoon ak njiitu réew bi fi nekkoon ñu jëlee ko fi teg fi le président son excellence Bassirou Diomaye jaxaar fay alors rupture boobu na ko sénégalais yi continuer di ko observer di ko gis aussi dans l'assemblée nationale pour dire quoi pour wax ni rek képp koo xamante ni député la war nga am cette prise de conscience maanaam nga xam ne dañu la fal. pour que nga doxal ou bien nga taxawu askanu Sénégal dañu la fal pour que toutes les lois yi nga xamante ni war na jàll assemblée nationale nga xool ci askanu Sénégal pour nga voté ko mbala nga ñàkk ko voté dafay indiwaat aussi loolu nga wax loi yi nga xamante ni ñu ngi ciy xaar assemblée nationale mooy amnistie bi mooy wàllu ngóor jigéen et cetera donc amnistie bi dina xaw a difficile tuuti parce que ku ci nekk day xool côté bi nga xamante ni moo ko gën a arrangé mu jéem a xëcc jëm foofu mais lu mu ci man di doon rek nan ci xool lan moo gën a arrangé askanu Sénégal ñu taxawee noonu bu fekkee ne nag dañuy wax ci mbiru euh, ngóor jigéen loolu moom gis naa ne Sénégalais yi à quatre-vingt pour cent kenn d'accord ci vraiment ngóor jigéen yi ñu taxawal leen fii au niveau du Sénégal ñu may leen fi doole lépp lu ñu mën a def pour que ñoom seeni action ak lu ñuy def ñu mën ko arrêté je crois que loolu moom peuple sénégalais bi mu ngi ciy xaar assemblée nationale bu baax a baax baax parce que am na ay agitation yu fi jotoon a am ci at yi weesu boo gisee taxawaay bi ci sénégalais yi taxaw ak niñ ci doon waxee nga xamante ni kenn jógul pour war a euh, war a dooleel ngóor jigéen fii ci Sénégal donc assemblée nationale ñu ngi ko ciy xaar mu tranché ci question yooyu mais d'une manière boo xamante ni dina tenir compte ci bëgg-bëggu askan wi ba nga xamante ni askan wi dinañ gis seen bopp ci lépp loo xamante ni assemblée daf koy wote arrestation Moustapha Diakhaté noo ko gisee ñu bari jàpp nañ ni euh, fi ñu toll nii li ñuy wax menace de libertés moo am ci réew mi maanaam ak yi ñu amoon ci wàllum démocratie dafa mel dafay dellu gannaaw parce que arrestation yi euh, bari na ñu bari mënatuñu wax seen xalaat est-ce que yow da ngay jàpp ne euh, menace de libertés dafa am wala amul. non man mënuma jàpp ne menace des libertés dafa am d'autant plus que man maa ngi nii fi mu nekk nii di wax sama xalaat ci réew mi mais nag wax bu bu ci man di doon njariñ lu man di am rek te wax ju wodduwut mbala war ma wut dafay indi problème après te nag dëkk bi dafa am li ñuy wax loi te luwa yooyu dafay tëral képp koo xamante ni da ngay wax ngay war a wax askan wi di la déglu la ngay wax dafa war a tekki newu dafa war a jaar yoon te nga bañ a offensé kenn bañ a gaañ kenn loolu mooy dëgg alors kaaw Moustapha Diakhaté nag man bu ma amoon loo xamante ni dama ko koy wax dinaa ne ko dañoo soxla xam-xamam dañoo soxla euh, sagesse am dañoo soxla aussi sa présence dans le landerneau politique ba tax na fi ñu koy xaar moom mooy taay bu génnee war a wax rek mu wax loo xamante ni luy jariñ askan wi la analyser situation politique ak situation sociale yi nga xamante ni moo am sans pour autant que mu utiliser des termes offensants yoo xamante nii dina tax ki koy dégrou am ñëgg-ñëggu xol bala am xolam buy metti mbala mu gëm ne mbala mu foog ne moom offensé nañ ko mbala gaañ nañ ko. Hmm. donc man ici au Sénégal gisuma fi benn yoon boo xamante ni depuis l'avènement de monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye amul kenn koo xamante ni li nga bëgg a wax wax nga ko ci ay teggin ak a yar ak ni war a ni nga ko war a waxee nga waxe ko ba pare ñu woo la loolu amul donc képp koo xamante ni na nañu c'est parce que peut-être tu as dit yoo xamante ni. alors euh, yoo xamante ni jaarul yoon wala na nga ko waxee tegginewul ci lañ lay interpeller voilà euh, Makhtar euh, Ndiaye aussi ñu laaj la si euh, li nga xam mooy statut du chef de l' opposition nga gis ni fi ñu toll nii ñu bari ñu ngi laaj déjà kan mooy chef de l' opposition bu ñu sukkandikoo ci élection législative yu mujj ak présidentielle yi ñii naan Amadou Ba ñii naan Macky Sall yow da nga d' accord ñu daal di koy sauvegarder mais aussi appliquer ko jox ko privilège yi nga xam ne moom la war a am wala ñu supprimer ko. la mooy sa position par rapport ak statut du chef de l'opposition li ci sama position mooy que ni chef de l'opposition dafa war a am parce que bokk na ci li nga xamante ni dafay dundal démocratie Sénégal ci démocratie bi toll nii bu avancé wul war a tout a reculer donc statut wu chef de l'opposition dafa war a am et ça va nourrir encore une fois euh, le la démocratie dafay permettre aussi landerneau politique bi man di yëngu positivement bu ko defee dafay permettre au Sénégalais ñu comprendre ne démocratie mu ngi dox léegi nag kan moo koy doon kan lañ war a jox euh, euh, statut de l'opposition alors loolu il faut que ñu teg sur place des critères yi nga xamante ni bépp sénégalais bu ko gis dina xam exactement ki mérito nekk euh, chef de l'opposition ou bien ki nga xamante ni méritewul nekk chef de l'opposition mais lu mu ci mën di doon am nañ possibilité xool par rapport ak présidentielles yi passé kan moo topp ci ki ñu fal ñu def ko chef de l'opposition ou bien ñu xool au niveau de l'Assemblée nationale s'il y a lieu de voir kan moo ëpp les députés ban parti politique je ne parle pas de coalition nag mais je parle de parti politique bi nga xamante ni peut-être moo ëpp les députés ah ñu jox ko le statut du chef de l'opposition mais lu mu ci man di doon nañu teg des critères de sélection du chef du statut du chef de l'opposition critères yoo xamante ni bépp sénégalais dina leer ci sa bopp ba bu boobaa képp ku ñu tabb daal ne kii la dinañ xam ne remplir na critères yëpp donc buñ ko joxoñee moom la war a doon évidemment bu boobaa sénégalais yëpp dinañ ci d'accord. Mmh. dernière question Matar mooy euh, économie bi nga xam ne fi ñu toll nii dafa taxaw en tout cas bu ñu sukkoo sukkandikoo ci expert yëpp d'accord nañ ni économie bi euh, dafa taxaw naka nga xalaatee situation bu difficile bi nga xam ni réew mi mi ngi koy jànkonteel actuellement ci wàllum kom bon loolu dama leen koy d'accordal ñoom experts yi nga xamante ni wax nañ ne peut-être les signaux sont rouges et cetera mais je me dis que aussi on n'a pas encore accordé suffisamment de temps au régime bi nga xamante ni moo nekk sur place joxaguñ ko temps bu doy boo xamante ni vraiment tout ce qu'il est en train de mettre sur place mu mën a euh, euh, émerger mu mën a jóg ba nga xamante ni économie bi dina ànd ak moom mu am benn essor économique boo xamante ni moom la ñuy noter ici au Sénégal je me dis que ils sont en train de de s'y atteler ñu ngi ci nekk ñu ngi fexe poser ay actes yoo xamante ni dina permettre ñu relancer waat économie bi comme nag euh, li ñuy wax rek euh, diriger un pays c'est pas euh, se lever un bon jour comme ça nii rek nga bës bouton lépp nekk ni nga ko bëggee mais je me dis que d'ici peu de temps vraiment dina am benn relance économique boo xamante ni ñëpp dinañ ci gis seen bopp te puis économie bi dina delluwaat fi mu nekkoon bala fu ko raw sax ndax comprenez que nouveau gouvernement bi bi mu fi nekkee léegi aussi ñu ngi doon càmbar xaalis bi fi desoon nu mu fi dese woon bi fi jot a nekk nuñ ko defee ni bi ñu dépensé nuñ ko dépensé bi fi jot a nekk nan lañ koy dépensé aussi tout ça ce sont des choses qui sont en train d'être faites par le nouveau gouvernement donc man dama leen di accorder euh, cette euh, cette période de grâce, encore une fois, du rôle d'ici temps, je suis optimiste qu'il y aura changement et que l'économie sera relancée et pour le bonheur de tous les Sénégalais aussi. Voilà, merci beaucoup euh, Martin Ndiaye maa ngi lay remercier bu baax a baax. Mm-hmm. may fàttali ne Makhtar euh, professeur nga ca mm-hmm. lycée Kharkane bu Gossas ah. conseiller municipal ca bambay coordinateur mm-hmm. départemental de gox yu bees section bambay noonu la noonu la